um então, la mouvement ànd suqali sama gox amale seen ndaje mi foofu ca quartier Santhiène nekk ca Mbàkke Bool si njiit la Papa Ndiaye moom nag moom ñim àndal wax nañ mouvement bi li ko tax a jóg fan lañ ko jële ak fan lañ ko jëmee moom Papa Ndiaye nag yëkkati na ay kàddu daan ne daal sanc yi dafa war a doon référence ci biir département bu Mbàkke Bool looloo tax nag ñu daal di jóg sol seen dàll dem seeti ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome ginnaaw bi ñu diisoo ñu wax ko tawat yi nga koy dund moom Félix Antoine Diome nag daal di yëkkati ko ginnaaw gi nag ci li nga xam ne ay taabal la nekk ci marché Santhie di ko soxla wut nañ ci tamit lu tolloog benn baas bu yaatu ak i moom Papa nag nee na seen gox bii nag dafa manqué courant dafa manqué ndox dafa manqué yoon ñu déglu Papa ci micro seen set dara war na suñu jëmm ñu xeebu ji ndax li suñu yitte mooy suñu gox mooy suñu yitte ndax mouvement bii di ànd soxla suñu gox turam dafa war a wuyu borom te luy suñu yitte mooy gox bi soppeeku soxali moo tax duñ tàyyi duñ sonn te duñ dellu ginnaaw waaye si biir loolu olof njaay danaan feccam lii bu neexee day jëma tey su waggee tey fi ñu toll li ñu mën li ñu xam dañ koy sant Serigne Cheikh Anta Mbacke mu sëñ Modou Rokhaya mu sëñ Modou Mamoun kooku mooy suñu waajur di suñu bàyyi di suñu lépp lépp ginnaaw ba ñu koy dénk boobu amuñu woon dara mënuñu dara ñu dugg si lii tey ñu am gëm-gëmum ne li muy saa dikkal saa su ne su noppi da nga nekk missionnaire boo xam ne mooy Touba mooy liggéeyloo fa nga dëkk kon nanga fexe ba lépp loo am na nga si jigéen askan taxawu leen moo tax talu ñoo lekk talu ñoo naan talu ñoo sol lu rafet ndax suñu askan bëgguñu benn yoon ñu ñuy xool di gis ñu lu bokkut ak li nga xamante muy yërmaan ndax tey bu ñu xoolee gis ñuy jaagar jaagari mën nan ko waaye kon boobaa. wàcc nga war suñu diggante ñun ak ñoom ba suufe mën leen fekk seen bëgg-bëgg xam li seen bëgg-bëgg ñu taxaw li si boo li nga xamante ne moom mooy sababu daje bi te ku ne xam na ne Pape Ndiaye responsable politique la nekk sëñ Darou Salaam di yëngu si développement ci si volet social yàlla dogal ñuy dimbali néew gi doole ngeen taxaw seen seen dëkkuwaay di tabax ay kër yoo xam ne def ci yàlla tax di dem defar ay douce yoo xam ne dañ ko def ci yàlla tax handicapé ñu leen jëlee six ay becc di euh, expose di leen ko jox créer festival boo xam ne kaay baax la tuddee au niveau département de Mbacké dimbali handicapé di dimbali ñi nga xamante ne ay malade mental maanaam ñi ñuy wooyee ay dof ñu leen taxaw di leen jàppale si dala xel wàkk Serigne Saliou Mbacké yàlla dogal nag

lu si mel ni ceeb bi ñuy bay Sénégal dugub ji mboq mi bas yu baree baree baree bari di ko jëfandikoo di ko togg askan di ko loolu nag bu amee su jigéen ñi nga xam ne ñoo def loolu ñoo liggéey tey liggéey bu am am solo ba askan wi yëpp gis ak ñu am solo woowu noonu di leen si jàpp léegi nag yàlla dogal ñu am benn partenaire di sunu leader jàppale ñu bi demee toog waxtaan ak moom mun nañu kat lu ngeen liggéey ñu wan ko lu ñu wan ko formation fruit bi wan ko formation céréale bi mu lu ko yëkëti alala jox ñu ko appi ñu ci ngir loolu ñu commencé liggéey ñu mën ko gëna dolé dooleel ñu ko joxé nak suñu xel jox ñu ci dëkk bi dëkk muy sañu dar salam jafé jafé yu am té ñukoy dunu metti ñu lool ñu jël tolok 20 table yo xamantene pour marché seigne daru Salam nga yobul ngir ña fa nekk di jaay ñu mën leen koy jox dimbalé leen ko seigne seen jaay moom noonu bi lo amé parce que dama dem si marché ba gis muy bu tawé muy buuj xamné lek lekk la ñuy jaay té loolu lek ko ñun ñu fay dëkk ñoo fi dëkk ñun ñu fi dëkk ñoo koy jëndi waat di ko lekk lu jàngoro bu ci nek ñu lay dala ñu né pourquoi pas en tant que responsable politique warna na mën a appuyer appuyer ñi nga xam ñoy nek ci marché bi tay ci dimbalum toll ni moral table de marché yi ñu jënd ko mu ngi ni wa dëgg yalla lu am solo la bis tegee moy bi ñu pare mu joxaat ñu ñu jënd ay 16 jënd baas bi tay ñu tim muy askanu sëñ dar salam ñoko bok ndax kee ku xam na ne xew jamm mu am ak xew bo xamanté safan ba waaye lu ci mën do na ngay soxla baas bi nga xamante ne euh ngay dox sa diggante ak naaj bi kon kooku kan do bu ngeen tàggat mako bu baax a baax a ginnaw Papa ndjay ki nga xam mom mo moo nekk ci ginnawum di Baye Zal Thiaw moom it na ay cadeau ñu déglu Baye Zal Thiaw ci micro Sen 7. de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye diom pour le soutenir dans toutes les actions qu'il aura à entrevoir il nous a écouté et conseillé à persévérer dans cette mouvance. Sa contribution nous a permis aujourd'hui de prendre à charge certaines difficultés. Il s'agit entre autres de l'achat de, 40 chaises du moins et une bâche de 9 mètres sur 6 pour appuyer le programme de développement du GIE en dessous Pour notre marché qui manque de tout, nous avons fait fabriquer 16 tables d'un mètre carré chacune pour soutenir nos braves femmes. Toutes ces actions ne sont que des débuts du commencement. En effet, nous tenons à remercier vivement M. le ministre Antoine Félix Abdoulaye qui nous a appuyés pour la réalisation de toutes ces activités. C'est pourquoi nous souhaitons que notre collaboration se renforce davantage pour le bénéfice exclusif des populations de saint Santiago. Pour terminer, je tiens à vous rappeler la délégation qui vous avait représentée chez le ministre de l'Intérieur. Il de M. qui et le coordinateur du mouvement, M. Ibrahim Sek, qui est à ma droite, chargé des relations extérieures,

bi ñu ko sampeeg léegi nag yàggul ndax matul at waaye nag wax dëgg yàlla sant suñu borom baax liñ ci bëgg daal kuñ ci dolli ndimbal ndimbal daal lañ ci ñaan kuñ ci dolli ndimbal ba liñ ci xam ne fii lañ bëgg formation bi egg fa daal ñu ñu ñu ñu dimbaliñ ci ki nga xamante si ni mooy euh, kii mu jàppaleñ ci Antoine Diome mu jàppaleñ suñu formation bi ba xam ne ñun li ñu bëgg ci formation bi rek euh, ba jigéen ñi ñun ñëpp rek ñu am liggéey boo xamante si bu ëllëgee rek duñu duñu ñaan fee li jënd loolu laay wax Pam Ndiaye maa ngi siyaare Pam Ndiaye bu baax nag di ko nuyuwaat bu baax rek di nuyuwaat euh, sëñ Saliou Thiaw bu baax ndax toujours maa rek ñi ngi daw ci loo xamante si mooy sëñ ci Darou Salaam bëgguñu sëñ ci maa ngi ci dara du ben jigen bu nek sañ dar salam wala góor ñu bëgg ñu manki dara ndax jigen ci sañ yi fuñu tollu rek papa ñi dox lo xamanteni ñu leen jariñ la muy walu marché bi muy walu santé bi muy walu dëkk bi bëgg koñ bi baax ñun ñi ngi ñaan président ak ku mëna andal mu japp ñu ci ndax suñu koñ bi lëndëm na kenn ñi to doxi man de bu ma demee Mbàkke ba guddi damay fanaan ndax ragal na wacc fi amunu ndox amunu courant di ci am bina ak néew bu tay bala balaa ti yalla ko courant bi mom bañ na ko ba bay da da ñun dañu wër ñun bokku ñu ci ñi am courant Pam Ndiaye xex na courant bi ba son ndax bëggu ñu am courant ñi ngi ñaan nak president mu dimbalé nu ci li Pam Ndiaye li mu bëgg mu gën nu ci jappalé ndax ñun kat bu jappalé Pam Ndiaye mi lu mu bëgg dañu ko am kon ñun wa koñ dañu jappalé Pam Ndiaye te Pam Ndiaye lepp moom ndax sariya bi ñun amna ci ño xamne ñun ñi di ko def amna ci ñu mëntoon a mooñ te ban ko jàngee ba tay légui ni ku dem sa kër bu la nexé nga jënd sa kilo dugub defaral ko sa bokk suñ koy defar yaa na koy nduur mii lu ne la ñuy def mais lu mu def bu mu paree rek dañuy ànd te xam ne lii njàng la te mu ngi nii tey ku demoon sa kër mën ngaa woo ay nit jàngal leen ko ndax mën nga ko ba pare kon nag Pam Ndiaye dañ lay ñaanal li nga wut ak li nga bëgg yàlla na ko sama borom may. seen kàddu yooyu nag la ndaje ma daal di jeex ñu la te ko ci mbégte jigéen ñi fecce ka way di bég ci mouvement ànd suqali sama gox mu nekkoon Youssou Niang seen set fii ci Mbàkke Bool